kaddu yi ñi démarré moy masawu ñepp képp koo xam ne rek euh, mbënd mi fi ci Nianing ak yeneen dëkk yi nga xam ne laal na leen ñoo ngi masawu képp ku mbënd mi yàqal vraiment moy lu metti waye nak ñu xam nekul nekkul Sénégal rek waye Afrique la aduna bi la waaw lu exceptionnel la lu ñëw ren loo xam ne il fallait quand même ñu faire face donc bi mu amee ñun en tant que maire de la commune ñëw nañu personnellement ci Nianing ak ci yenn dëkk yi jege jël toute une journée bo xamné bi bii dañoo wër kep ko xamné ki kii nga massawu la dans un premier temps xol situation bi nan la démé ak lan moko waral ak yàqu-yàqu bi nan la tollu loolu on a pris dimanche passé toute une journée bo xamné bi ci lañ yendu ba recenser l' essentiel des besoins yi nga xamné ne ñu yàqule yàqu euh, dal na len loolu biñ ko défé ñu né il faut ñu rapidement indi suñu jappelé jëm ci population bi bi ci jitu moy kër yi nga xamné amon na ndox ndox mi tafa bañ fa joggé ñu fexe ko pomper.

nous avons 129 personnes. Donc nous avons des tchèpes, des zinc, 20 tonnes de ciment, des matelas, une cinquantaine de matelas. Donc nous avons des bagages super, nous avons pour une valeur de 4 millions de francs CFA. Nous avons 129 familles. Nous avons des Pointe-Saren, Warang, Malikunda Bambara, Sali Aérodrome et Falor. Donc, 129 familles qui ont été en train de se faire. Nous avons été En attendant, wax nañ ne président de la république amna lu prévoir envoyé nañ ñom ñep seen tour ci gouvernement bi pour que président dimbal li nga xamné ne bëgg def jëmele ci ñi mbënd mi laal ñoom tamit ñu mën caa jot donc di leen masawu dal dans un premier temps ci ci li xew. ku nekk xam na ne ñeniñ euh, inondation bi liko ko waral dëgg mom moy rivière bi nga xamné dafa traversé dëkk bi de long en large rivière boobu nak dañu gis né dañ ko agressé ci lu bari fay am yenn niveau yo xamné kër yi dañ ko étouffé ba quantité d'eau bi bu ñëwee. il faut mu tasaaroo dugg ci biir kër yi inondation bi loolu daanaka moo ko waral à Nianing donc loolu ñoo ngi ñaan yàlla bu nawet bi wàccee ak jàmm euh, ravin bi dañ ko bëgg a euh, carrément drainer ko lépp luy garab lépp luy suuf lépp luy salte loo xam ne mi ngi ci ravin bi ñu curé ko ba mu set ba nga xam ne bu ñu yàlla bàyyee ba déwén nawetu demen ndox mi dina am place bu yaatu bu mën a jaar donc je crois que loolu bu ko defee déjà rek bu bi waroon a doon cent dinañ ci wàññi au moins de soixante pour cent dina dañ

ADM moko ko won woon euh, qui AGETIP nekkoon agence d'exécution bi mais liguey bi dafa yag parce que ñom ak état civil bi ñu nek lañ tambalé ndoo woon commune bi financé état civil bi ADM financé point yi mais ba tay ji point yi mënul ag pour des problèmes de budget donc commune bi tamit jël na en charge pour que point yi ñun ñu agalé ko suñu bop bëgg nañu vraiment rembler ko nam waré def ci lépp traitement bi nga xamné dal. inshallah allah ñoo ngi am yaakaar ne bu fi nawet ñëwaatee ak jamm point yi dañ am benen taxaway bu ñu am bu bokul ak bi amone den inshallah allah waaw xam nga xam nga dama ko wax keroog ne euh, heure politique dafa am heure secours ak liggéey am yaakaar naa ne mbënd mi taxawaay kuy politique mooy loo am lu tuuti tuuti même bu dee benn mille la nga jënde ko ciment wala nga jënde ko 5 wala nga jënd ci matelas même bu dee occasion la wala matelas nu mën ci toll nga ñëw dimbalee ko ko ko yàqu la ci mbënd mi loolu mooy fayda te loolu la population yi di xaar ci ñun en tant que politique mais xaaruñ ci ñun. Nous utilisons à des fins politiciennes vraiment li nga xamné mo dal population donc lolu rek la qui wax jarul ma ci soreeti la ma ci lañ nekk tay nañ dimanche yendu fi wër mbënd mi nan la mel sapeur pompier ñu indi soutien jëmele ci population yi nga mbënd mi donc je crois que lolu rek moy farata bi li ci des yépp ay wax la rek toute la commune de nous ñun outatuñu dara kon yalla lim ñu doon a defal nañu ko ñun ñongi bu baax. ndaxte keroog ba mu tawee man bokk naa ci ñi nga xamante dañoo yàqule waaye bi ma gisee suma maire ñëw taxaw sol ay dàllam dugg ci biir ndox mi moytuwul ponto moytuwul banta buy gaañe moytuwul miir bu daanu moytuwul fil bu dugg ci ndox di xuus ak ñun di xool ñen ñoo yàqule ak ñen ñoo am jafe-jafe loolu dama ko ne keroog lii donc boo ko boo ko fi yemaleen doy na lii donc boo ñu ko fa yemale woon doy na ndax mosuñ koo gis bañ taxawee ñeneen ba léegi mosuñoo gis lu mel noonu c'est la première fois ci bés bu njëkk ñu koy gis kon ñun mën naa wax ne rafet nañ njorto suñu yaakaar suñu borom defal nañu ko eh, di gërëm équipe bi nga xamante moo ànd ak eh, président Maguette Sène mu nekk équipe boo xamante ne eh, ñu yendaluñu fanaanaluñu nu ngi suñu kanam di nu laajte lan ngeen ñàkk lan ngeen manqué lan ngeen amul lan moo yàqu lan moo yàquwul kon loolu buñ ko amee ñun aussi mënuñu def lenn lu dul delloo sunu bopp yàlla mi nga xamante moo ñu tànnal équipe bu mel nii